بسم الله الرحمن wa barakaatu mbokk yi yéen a ngi ànd ak euh, Tawhid TV euh, di benn euh, bànqaas télévision boo xam ne mi ngi samp fii Sénégal diine ñor ko comme Tawhid nag ni leen ko waxee mooy wéetal yàlla lépp wéetal yàlla la tey nag ñu nekk fii ci Touba Sitor di ñu dëkkum maam waaw di itam di dëkk boo xamante ni dëkk bu barkeel la waaye comme ni ko sama nijaay waxee léegi rek eh, di itam li ñu ñor mooy eh, ñaanal suñu kilifa yi nga xamante ni ñooy way dawlu yi waaye ñu ànd koog sunu mag Adja Soxna Nogay Amar ah, di nuyu waa dëkk bi yëpp nag eh, di siyaare ñi nga xamante ni ay gan lañu itam ñëw ci dëkk bi jàppale nu ah, fépp foo xamante ni nit jóge na fa ci gox bi wala ci Sénégal régions yeeg fépp fu mu mën a doon ñoo ngi lay nuyu di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw di leen wax ni rek ba tey ñoo ngi ci biir cérémonie officielle bi nga xam ne ñu ngi koy ànd ak yéen fii ci Touba Sitor waaw. ci kàddu xale yi nga xamante ni ñoo nekk ci dëkk bi nga xam ne dañ maa jox seen kàddu pour moo waxal leen ah, ñu ñu ngi nuyu ñëpp ah, di eh, ñaanal ah, sahibul fadila a seex mun muntaxa mu yàgg fi loolu te ànd ak wér waaye itam di siyaare waa dëkk bi yëpp di ci jiital sunu mag ji nga xam ne moo nu jiite lépp. Euh, an ñu ànd kook sunu baay ak sunu ndijaay yeeg ñëpp rek euh, ñoom nag euh, nee nañu ñu ngi leen di sant bu baax a baax ndax dara gënta am mbégte mooy nga xam ne ndaw ñi jox leen seenub cër cër bi mooy mooy maanam lépp loo xamante ni lu ñu war a taxaw ba bis bi aw yoon ngeen teg ko ci seen loxo nee na loolu doy la goog ngeen di doyloo nee neena ñoo ñu ngi ci sant bu baax a baax a baax di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu guddal seen fan yokk seenu wér waaye itam ngeen yàgg leen a digal ñu yàgg ko jëfee waaw euh, ba tey ci loolu euh, ñu ngi nuyu itam suñu gan gi nga xam ne moom la ñu yabal muy monsieur le maire ñi nga xam ne ñoo ñooñu la yabal waaye itam ñu ngi leen di xamal ni ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax suñu borom may ko tawféex waaye may ko wér bu baax a baax a baax euh, ñi nga xamante ni ñoom la yabal ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen dalal jàmm di leen wax ne dikk ngeen fu ngeen war a dikk ndax dëkk bi euh, dëkku meer la ndax euh, yaakaar naa ay maamam buñ dee wuñ wañu ay maamam dañ dañ dañuy ñëw fii ci dëkk bi kon moom ñëw na fu mu war a ñëw waaye itam bu dul loolu en tant que ñëw na foo itam fu la war a ñëw ndax dañ ko jë euh, mooy muy muy muy kilifa li nga xamante ni mooy bokk moomeel bi waaw waaw ndax tund wi yëpp moom mooy moom la yàlla dogal tey moo fi représenté président de la république kon lépp lu mën doon ci moom lañ koy jooyal waaw toujours ni ñu koy wax xam ngeen ni Sitor moom dëkk la boo xamante ni dëkk cosaan la dëkk bu euh, am ñaar téeméeri at du dëkk bu ndaw kon dëkk la boo xamee dëkk bu yàgg la kon ñu ngi leen di yónni ci président de la république di leen wax ni bu bàyyi xel bu baax a baax ci dëkk bii di Sitor waaye rawatina gox bii di euh, arrondissement Mbaba Garaas bokk na ci li ñuy njëkk a njëkk a njëkk a jooytu mooy xam ngeen ni fii ñu bari ñu ngi fi ñëw ñii ñu ngi jógee Dakar ñëw fi ñi jógee Touba ñëw fi ñii jógee ci régions yi fu ne bàyyi ko fi ngir ñëw ci ngir bis bi waaye leen seere ni ah ay jànkuwante coono la ñu àndal ndax euh, rang-rang bi nga xamante ni boo boo boo boo wàcc apias rek jëm si Mbaba Garaas euh, euh, sa yaram day daw te loolu temps colonial ba ba léegi mi ngi fi loolu nag wax dëgg yàlla doy na waar buñ ne temps colonial nag mën na ñëw ay sax ginnaaw lamin Gueye waaw daal di tudd président Senghor ah président Senghor bu mu jàllee Abdou Diouf ñëw ah, moom di sunu jamono ñun Senghor xamuñu ci dara ñun nii te fii ne ñu ngi xaw a weex wax dëgg yàlla kon loolu yàgg na lool ah ay xale yu tuuti bu ñu demee bay weex ah te seen rang-rang bi moom la ñu gis wax dëgg yàlla te boo ko ci réew mi te xam naa ne fii ne bu ñu dee seet li ñu président magee bariwul te bu ñu demee ci dëkkam am liggéey na ko defar na ko ba mu baax Fatick gi mu bàyyi ko te lépp lépp mel na ne te Fatick ñoo ko bokk ak moom waaye ñoo bokk moom Baba parce que citoyen lañ bokk ci réew mi kon dana da war na am solo lool mu bàyyi ñu xel bu baax a baax ni itam yéen euh, monsieur le maire wér nañ ni bu fekkee noonu seen sagoy bopp la ba léegi defar nañ ko waaye nag dañ leen a yilif waaye ñëw ñu leen di yilif nag ñoom la ñuy jox xar bi baaraam nag di leen wax nag yéen yéen a ngi sonn di leen sonnal képp kuy sonnal nit nag moom itam war nga koo bàyyi xel bu baax a baax ndax bu euh, fii ne nii seen campagne yi tooy ngeen ba fii ne yéen ngi feebar waaw waaw na nañu maanaam fii ni nii euh, ku ci ne tey bu campagne yi jàllee di nga tooy tooy joo xamante ni wala iyaasu billaahi doy na waar lool lool lool waaw ah, lool loolu li ko waral mooy tëli yu métti ah yu métti kon loolu lépp jeunesse bi ñu ngi koy wax xale yi ñoo ngi koy te xale yi léegi bu dee wat ñooy wat waaw fii ne mag ñi parce que daanaka léegi seen wàllu jeex na am nañuy carte wote nag waaye léeg-léeg mel na mag de wote dina jot waaye ay ay aw yaramay mi teeg yooyu ba mu tàyyee dem wote ji waaye ndaw ñi moom dañuy ànd ak condition ànd ak physique ngir mën a dem euh, sànni ji seen i xob te loolu ñoom ñoo koy def kon nañ leen jàppale bu baax baax monsieur le maire ñoo ngi lay wax pour nga euh, waxal ñu ko président de la République li leen son nañ ci mbaaba euh, fa suñu xel mi ngi dem sax ci marché bi suñuy doom di ko def Dakar ñun dañoo amut kii waaju kiir waaye kon dañuy dem ànd kook ñoom nañ ko doon marché Dakar ndax fan yi maa ngi koy dégg ci benn communiqué ñu ni jeunesse Mbaba garage bi nga xam ne ñoo nekk Dakar ñu ngi ñu ngi waaj di def benn marche boo xam ne tali Mbaba garas euh, Bambey la ñu kii pour ñu defar ko kon lool lool moo gën a yitteel bu loolu paasee itam euh, waaw bu loolu paatee itam ñu ngi gis dëkk yi ñu wër yëpp am nañ courant waaw dëkk bu nee dëkk yi ñu wër nag al isaara tak fii li laa xel maanaam du junj day doy ko am xel. bu ñu junjee rek ju jar ñu naa dëkk sàngam di cité dëkk sàngam waaye na ci dëkk yuy wër yu bari yoo xam ne courant baa ngay circuler ci biir te itam dëkk bi wax dëgg yàlla ah yelloo na ko ndax comme li ma koy wax toujours am na ay jamono ay Serigne Diop sadax taak yooyu man sama xel mi ngi dox waaw Serigne Diop sadax ta wéeru na fii waaw Serigne Diop booba jamono yi mi ngi def ay campagne di ñëw fii booba defe naa Abdou Diouf la doon campagnal defe naa waaw ndax booba man tuxooguma Touba te jamono yi euh, Abdou Diouf sax def naa ko Touba ba Ablaye Wade ñëw 2000 doog a jël réew mi kon Serigne Diop sa saraxta fekk na ma fii wéeru na fii am na ak yeneen yeneen yeneen homme de temps yoo xam ne ni ñëw nañ ci wéeru ci wéeru gën mi ndax euh, genn euh, garab gu mag la goo xam ne fii la ne ci penc mi garab gu barkeel goo xam ne ni ah, ki ca wéeru rek euh, di nga ci gis sa bopp bu baax a baax loolu yàlla dogal na fii ci dëkk bi la nekk kon dëkk bi dëkk cosaan la bu yàgg ni ko suñu nijaay Assane Mbaye doon waxee léegi ak sëñ bi doon wax ci jàkkaa ji léegi estouré yooyu noonu ñu doon waxee dëkk bi noonu la demee kon dëkk bi ci Sénégal la bokk waaw ay mag ñu am dignité ñoo fi nekkoon ñoo xamante ni dañ daan liggéey di jaamu yàlla dégg nga toppatoo seenu njaboot ba tax ñoo ñu moo waral ñu meññ mm, ñu am jom ñu nekk fii te suñu borom subhaanahu wa taala dafa wax ni wal baladu tayyibu yaxruju nabaatu bi izni rabbi nee na tool bi nga xamante ni moo teey amut ay ëkk amut ay eh, ay poox ak xeet yu mel noonu nee na boo fa jiyee sa gerte macha allah dina dina dina meññ meññeen moo xam ne am solo la loolu la yàlla wax ci alquran kon moo tax nag sunu uh, wayjur yooyu sunu baay yooyu sunu maam yooyu ñoo reproduire lii tey ay soxna yoo xamante ni ay ma yàlla yoo xamante ni se fonk seen cosaan bëgg lool kasaalika ñoo meññ ndaw ñi nga xam ne ñoom laa jël seen kàddu pour ñuy wax kon ci gàttal uh, uh, tàll na leen loxo bu baax monsieur le maire maire it suñu mag la waaw euh, bu ñu waxee suñu mag la rek ñu bëri nañu xam euh, li nga xamante ni loolu lañ seq ak moom waaye itam euh, ci dëkk bi la bokk kon lépp loo xamante ni am na ci gox-goxaan yi ñu ngi koy sàkku góorgóorlu na nag am na maanaam fii ne bu guddee am na loo xam ne ñu ngi koy niitoo macha allah waaye dañoo bëgg na courant bi nag ni muy demee yeneen dëkk yi bu ma la sidéré euh, Lansar ak ay ay waaloog xeet yu mel noonu yëpp courant bi jàll na fa waaye loo koy jàll euh, jàllale noonu na na ko fexee nag xëcc nag mu ñëw fii nag waaw lool noo ngi koy ñaan bu baax a baax a baax ndax dëkk bi kat dañu bëgg incha allah man miit dama bëggaat ñëwaat sampaat sama kër euh, nekkaat fi ñeneen di loolu lañ bëggaat tey loolu lu leen arrangé lay doon ndax yokkute rek la wa ma tawfiqi illa billah wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bismillahi asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, monsieur le maire ak ñi mu yebal laay commencé am na yoo ñi mu ñu ngi leen di xoolee bëti monsieur le maire ñu ngi leen di xoolee kàddu monsieur le maire bisimilah si ngeen ci seen dëkk yegg si ngeen fi leen bëggee yegg si ngeen ci ñi leen sopp kon yàlla na yàlla déggale leen ñoom nekk ñu ne leen ko ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla ñaan fii toogoon nañ fi ñaanal ko yàlla yàlla may ko ndam yàlla sa borom nungul na ndam li ñoo ngi ñaan yàlla bokk ak moom njariñ li su doon nag njariñ yomb na ndax boo leen defalee li ñëpp bokk rek defal nga leen lépp biñ ko doon ñaan ñu ngi ñaan mu agsi yoon weet ñu ngi ñaan mu agsi ndax dëkk yoon mu dëkk amee yoon rek dara yàqootu fa ko am courant am ndox am yoon dara sikkatu ca dëkk ba nee ko nag ñoo ngi koy xaar yàkkamti wuñ ko nag ndax day door a toog waaye ñoo ngi koy xaar ci ñoo ngi koy bàyyi xel bu baax a baax nag dëkk bi nag bëgg nañ mu jàppal nu ci ndax ñun dëkk bi rek la ñu am soo nu ko defaralee rek defaral nga nu lépp kon ñu ngi koy xaar di sant tamit ñi nga xam ne nii yéen la àndal ci toujours maa mu ngi ànd ak yéen yàlla na seenub ànd yàgg te yàlla gën leen a déggale yàlla barkeelaat pal gu bees gi pal gu musa am yàlla ci gi gën a nungu ca gën caa barkeel yàlla jubali ko président ah ba buy séddale mu ëppale ca séddale ba wala la ci ñëpp am mu am ko ca di santaal nag waa dëkk bi maa ngi di santaal bu baax a baax di leen ñaanal yàlla lu ngeen bëgg yàlla yàlla defal leen ko ndax ay xale lañu waaye am nañu Pastef bëgg na li ñuy def mànkoo nañu te ñoom ñëpp nag laa ko waxal maa ngi leen di ñaanal yàlla li ngeen bëgg yàlla neen ko yàlla defal fi ngeen bëgg dëkk bi yegg faat yàlla na ko fa yàlla yeggale léegi naa léegi sëñ Talla ci biiri waxam mu ne damaa bëgg a dellu waat kon dëkk baa ngi neex si na gën a neex ba képp koo xam ne nii demal nga di yokku neexaay nga dellu si waat gën a fekkaat fii neexaay ñoo ngi leen di sant baax a baax a baax a baax di leen ko ñaanal di ko ñaan yàlla mi nga xaay moo mën a maye ca ku may nga am yàlla na yàlla may ñu te dee ja yonent bi siyaat tamit nag sama bokk yooyu sama bokk sëriñ yooyu li ñu ngi maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di la ñaanal yal na yàgg sëñ seex li di ñaanal <clears throat> sëñ moodu di ko ñaanal baax a baax a baax a baax mucc ko ànd ak xiiwal baaxum maa ngi lay siyaar sëñ baax maa ngi lay siyaar baax a baax a baax di la ñaanal yàlla yàlla may la fan wu gudd ànd ak wér yow moom dëkk bi ci nga bokk lu xew ci dëkk bi rek yaa moom ñu ngi lay ñaanal bu baax yal na yàlla defal la jàmm defal ko mboolem jullit di ko ñaanal ñëpp na di ci ñaan ñaan euh, suñu ñaan gi te yàlla bu mu nekk suñu mujj gi ñaan te ñaan gi ni mu neexee tey yàlla na gu dikkati rek dàq ko maa ngi koy ñaan yàlla nañ ko yàlla defal di sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf wasalaam. asalaamaaleykum wa rahmatulahi barakatu bokki Touba Sitor ñu ngi leen di nuyu. ci turu kilifa yi naandal ñu bàyyi ko ci monsieur le di jiital ci nuyoo bi kilifa yu tedd yi nga xam moom lañ fekk buñ jiitalee sëñ Baara Mbakke moom sëñ Seexuna moom sëñ Ibra Xujja moom sëñ Mandumbe nekk ci dëkk bi leeral ko lool macha allah wecci leen lool day teg suñu sang bu baax bi nga xay moo fi jëmi maam Cheikh di sëriñ Mbacke Fall ñu tuddee ko sama sëriñ sëriñ Mbacke kan nu bokkan daara mu yoroon ma fa mbaa yàlla sama borom dogal ñu koy ji wàcc wàcc di xam ne kat nit seen dooyu ci bàyyi mu jale baayam di lépp sëñ Saliou Fall mi nga xay moog Cheikh Fall ñu bokk lépp sëñ Mbacke daa daax na ba ma gisee. damay kontaan ndax sëñ Mor Talla baayam lépp Cheikh Ibra la baayam lépp sëñ Saliou Fall la waaye ginnaaw yàlla ak ndigalul baayam lu nekk ci moom rek sëñ Mbàkke ko ci def ba tax na tey bu ànd nag mbooloo macha allah du xam fii ci dëkk bi kon sëñ bi noo ngi lay siyaar di la jox sa wàccuwaay di siyaare sëñ Cheikh li mi doon joxe ñaan léegi di siyaare nag njabootu sëñ Alsaan Gueye ka nekk ci bopp li sëñ Mbaye Guèye waaye ñi nga xay bi ñoo ko fi teewal di njabootam sëñ Ibrahima ak sëñ Alsaan di siyaare waa Daara Bakhoum yëpp di siyaare boroom dëkk bi di siyaare imam bi di siyaare waa daara bi yëpp di siyaare soxna Magat délégation bi nga xay bi nag moom la Moussa Lamère yawal Moussa Ndiaye am jom ko am ko ku jàmbare borom 53 pour cent laa ko tuddee ndax réew mi mu nekk ginnaaw yàlla jonte lu mu ci rek moo ko may boppam ba nit ñi ko ay naawlem rek la si xalan bu demee demee dem nag bu fuuf leen ba jéggi leen loola ji koy boppam yàlla nañ ko murloo bis tey nag yaakaar naa ne bu fekkee ni moo yilifan boppam dina fi yendu moo soxnaam ak délégation bi moom yëpp waaye ku yónni la nga am Baye Goth a ngi nii xam ngeen caaxaan caaxaan taxatu ko jóg mag mu tol ni Baye Goth Fall yàlla jox ko lim ko jox mu dégg chef du village dégg président banque mboolem ku nekk ci baykat ci réew mun ne yor yor sa njariñ bu tope ci ginnaaw Moussa Sarr xam ne ni Moussa Sarr dégg maam def réew moo tax mu topp ci ñu di ci teg nag ki nga xam ni moo nekk deuxième at yooyu maire di ko ne ko baax ki loo xay bi nu ñëpp noo ci d'accord muy Maguette Gueye mi ñu gën ko xam ci monsieur Gueye Max Dieye ak kan Alaaji Maguette Ba mboolem tijaan yu nekk ci réew mi mooy seen président waaye conseil municipal la mooy président conseil mooy président euh, commission domaniale ak kan Mbaye Faye conseil municipal la ñëpp xam ko moo yore marché Baba Glace yaakaar naa ko xamul Mbaye Faye itam dégg ko ak kan Baye Fall Ndiaye doomi Alaaji Mbaye Ndiaye moom itam nekk responsable mag doon jàmbaar nekk ci santé moom itam mi ngi ni toog ak kan biram mi nga xam ni ki doon wax léegi wax na dëgg mu saal ci réew mi la dëkk ci ndey ak ci baay biram mi mooy mbokkam mooy léppam ko gis ko fu mu nekk ak kan ñu ak Basirou Diop mi nga xay bi mu saal da ko jënd ubbi daaray alxuraan mooy jàngale alxuraan kon sooy boo ma ne mooy ilmaayu commune bi ak ak Birane Mbaye waaye nag noo am ay responsable yu bari fii ci dëkk bi ak ci li doon dundee ñu mën cee ràññee Madické Lo mi ngi dëkk Loyenne ñëw teel fa waa Loyenne gépp ak ki nga xam ne mooy Talla Talla nekk chef du village su Daaru Ngeer ak ñi xay bi ñoom la ñu àndal ñëpp monsieur le maire nag dama joxe kàddu ndax kii mooy wax ci kàddoom nit la koo xam ni yàlla sunu borom rek mën ko mën a fayal dëgg la yaram bi situation naan nag waaye fa tabarka la président ko soxlaal boppam dem réunion bi mu dem yaakaar nañ dina France waaye France une réunion en conseil la ba léegi ba fi mu toll ba may wax yow ñu nga ci réunion booba mu doon asgor di ab julit di ko bàyyi xel nag dëkk bi maire bu jëlee kàddu dina ko wax ndax ba dem ba nekk arbitre maa ngi miir ne kan monsieur le maire wax ni ma. courant bu fekkee ne luy naaw la walaay la si moom ko nee bu fekkee ne courant luy naaw la dëkk bépp ma réew mépp mbëgg réew mépp mbëgg waaye kon dina day dey naaw dem mbir ne kan mbaa naaw dem si tur kon mi ngi leen di bàyyi xel di ñaan ci yàlla ak yonent bi jëm Sëñ Tuubaa yàlla na ko teew negi ndéen yéen waa si tur nag ku leen naw lanu waa réew mi ndax atum ren mi nim nim nim jafee ci woote ñaari woote te tey jii tey woote bi mel nii war ngeen a xay bi ngeen def jooge ambar la soxna Maguette nag yow si teewante dënër nekk soxna Nogaye Maguette la xam xam xama Maguette alxuraan la la moo la tudd de Maguette ambar gi mooy ku màndu nga keef gi mooy ku gore nga taatombe gi mooy ku am njariñ ga mooy mooy mooy ku tabe nga ayin gi mooy ku xam sa ku am jom nga mim ngi ci des ku mën a muñ nga raa gi ku ragal yàlla nga loolu mooy màggat moo tax mën ko màggat kon ñu ngi lay jox sa wàccuwaay di ñaan yàlla ak yonte bi a ah, sëñ Fallou ñoo ngi leen sant la gërëm di sant góor baax a baax nag ci liggéey bi ak yitte ji ndax am na fooxaay bi kat bu ñu fàggee ginnaaw yàlla ak yonte bi seen jàmbaar ak seen kii war sant waa dëkk bépp léegi dañ jox kàddu ki nga bi mooy Ablaye Fall. ñu di ko wax Godou Fall mooy magum conseiller municipal yi nekk ci commune bi yëpp di ko nu yàgg jiite di ko xay bi tam moon jiite ba ñeme kon moom la ñu jox kàddu gi ma wax ci turu maire bisimilah. mbooloo mi ñu ngi di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak ci santam man samay wax xëñ na monsieur le maire dina ci ñëw waaye en tant que mag mu yàgg ci àndandoo jitaay bu ma nekk. ñaa nga xam ne di mag ñoo ëpp fop ña nga xam ne ñoo ma fa mag kon lépp lu may waxati yàlla laa ci jiital ak yonent bi si Sëriñ Tuubaa fa si ma wax nit di ko jay si wóorutuma nit dutuma wax te yàlla taxatul lu may wax lu ne yàlla rek laa ciy jiital kon ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaar yéen ñëpp dafa am loo xaay nag maxi moo ciy ñëw ndax mooy adjoint maire bari na lu nga xam ne mooy leen ciy tontu waaye nag lu ma yàkkamti yàkkamti dinaa wax yóbbante bu nga xam ne monsieur le maire woo téléphone wax ma ko ni ma nga nuyul man na koy amar santal ma ko gërëmal ma ko ñaanalal ma ko yàlla li mu bëgg moo ko xam yàlla na ko ko yàlla defal ndax kat xam na ni man na am na ko xam na ni yàlla wucc ko waaye sa teraanga ci moom saa yu nekk mu jóge ci yow Nogay Amar di dem ci Moussa Ndiaye nee na sant la ci gërëm la ci ba ci kori gii li nga ko xottil ak li ko yónnee ci ay ay bagages nee na ba nëgën si jeexul ma nga ci kër ga te nee na du tey la ko jëkke te noo ngi ñaan yàlla du mujj tey kon nee sant na la gërëm na la mi ngi lay ñaanal ci sa i nawle yàlla bu la ci kenn Euh, ragal yalla bu la ci genn jéppi yàlla na nga sut ñëpp wala nga ànd ak ñëpp dem ca kaw ñoo ngi sant bu baax di la gërëm fii ci Sitor nag duma gone te bari naa ci lu may dégg ñaar téeméeri at yooyu nga wax jàpp naa ne sax tegal na bant bi ngay wax nii wéeru naa ci ñaan ci yàlla ak yonente bi Serigne Touba li Mbun Sarr di yóotu yàlla na ci jot loolee nangu na dégg na itam ci ku yaroo fii ci daara yi bépp sëñ Mor Faasa yoroon ko ñu koy wax Njóogu Fall nee na yaar yii de mën na ko waat ba fekk sëñ Mor Faasa Sitor di doon na dëkk boo xay ne toujours dañu leen di ñëw waaye dutul dellu ginnaaw Njóogu Fall ci laa ko dégg noona itam bàyyi Muudu Wàdd fii ci gàdd nan la tuddati Mor Wàdd ku ko tee mën a gudd fan di nga gàtt fan ndax li mu defal sëñ Mor Faasa bari na bari waay goo xay ni saa yu nekk sëñ Mor Faasa da ko daan ñaanal nun doo ngay sunu xëyee bala noo dem fen ñaanal sëñ moor Wade yàlla na fi yàgg yàlla na fi yàgg bu mu mësaa nuyoo euh, Modou Wade da ko naan gën a góorgóorlu seen baay ndax dina fi yàgg de ndax sëñ Mor Faasa ko waxan si tóor gi nag yàlla da leen seen démb tey soog a ñëw am na daqaar gu nekk fële ci xur wi yàgg na maa nekk ci lii di ci yëngut jamono yooyu bokkut ak jamono ji am na ñu bari ñoo xam ne toxu woon nañu Touba tool yi am ay jafe-jafe ñu yebal nu fi nu koy lijjanti waaye keroog ba mu ñëwee dama leen ni nit day seet ci yàlla ak yonante bi xëy lu mu nekk tey ba léegi da ciy jóge nan leen xam ne dëkk bi dëkkum naar la. tool yi képp koo xam ne da nga ci doon bay ba jóge fi dem Touba danga ko war a delloo si naar yi ñu yoral ko seen bopp soo delloo sa fekk fi say tool ndax ay gor lañ yoo xam ne ku leen di ku leen jox lañu moom ñu delloo la nga moom loolu laa xamul ci sutur kon ñu ngi leen di ñaanat bu baax Moussa nag du ma ci sori ki ci war a wax dina ñëw waaye nag dama ànd ak moom dem ci sëñ siiru jóob Petañ. mu jàkkaarloog moom ne ko bi ma la nee jàkkaare yi lii nga yootu de moom kenn mën la cee jot gin naa ko sëñ Tuubaa Mbàkke sëñ Masamba Jóob ni di nga ci jot ndax yett yi nga xam ne yoonante bi da koy taggee nit day bi ma la nee jàkk gis naa ko ci yow yett yooyu mooy am nga yar am ngay teggin am nga njëriñ te loolu rek la ñuy eh, njiit kon yéen li ngeen defal Moutar Moutar mënul lu dul fay ndax mënul lu dul su dee bisimilah ngeen ne bisimilah bu yëkkatee ngeen jàppale ko bu tegee ngeen tegle ko bu ñaanee ngeen may ko kon loolu les di doyes gor li ngeen ko war a defal lépp defal ngeen ko ko li ci des nag nan ñaan ci yàlla ak yonent bi ak Sëriñ Bamba incha allah di ci jot jotin wu rafet ci sunu kanam ñun ñëpp. ñoo ngi leen di sant di leen gërëm li ci des dañ koy bàyyi ak Maxi yéen ndax am na yoo nga xam ni moom moo ca mën a egg ndax mooy adjoint maire bari na ci lu ma ci xam waaye nag ku la gën a mujj ci tool bi gën laa xam digg ba fa mu toll jërëjëf. loolu rek moo tax euh, ñu lay jox kàddu fu ñu toll ndax fu ñu la joxee kàddu rek di ñu sigal ñu ñëpp kon honorable Maguette Gueye nga ñëw wax ci turu bale boobu nag bis maire dafa am lu mu wax dani ngeen safoo ma faale ma yëg ma jàppale ma ba ci kàttanu yàlla suñu borom dandu lépp na am ko loolu doy na ab cër bis bii ngeen ko xaay bi moom lañ ko dar jàlle nekk da ngeen di yokk cofet rek yokk feeñal ndax kera bi góor a àndee ak sëñ Fallou lañ ñu wax ni bu bu fekkee ni luñ sañan la dey daañ ko tuddee ba pare ba def ko ci rajo ba sax du ko yëg ndax tudde gi jubluñ ci dara ndax lépp lu man doon kii na waaye nag kenn du la jox lépp nga jël lépp maire nee na bu am tolloon ni ñàkk incha allah bu ñëwee fii tey dina xam ni yéen ñëpp teral ngeen ko waaye moom tam njukkal na leen ana sëñ Fallou waaw sëñ Fallou waaw lettre bi moom la leen maire jox nee ñu dolli ko ci galas gi. du njukkal nag ndax rëy na yéen a bokk ñëpp am ñëpp jàmm ngeen jël bis bi cofee tax ngeen gaaral ko ko ne mi ngi leen sant di leen gërëm lettre bi li ci nekk amul solo waaye dama ko def sans poche mu yàgg yi cent mille francs la ne mi ngi lay na sedd génn te jàmm waaw kon ñu ngi jox kàddu gi sama jarbaat Max kii moo nekk deuxième kon yaakaar naa délégation yi fi wax yëpp dégg na ko incha allah li nga xay ci bokk geeg ak kii bi yëpp bàyyi ko wax na ko waaye dina leen toll ci wet googu kii doon wax ak yéen nag mooy El Hadj Ahmadou Seck communicateur traditionnel Baba Garage. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki Touba Sitor ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi nag kilifa yi jarul ñu leen di limaat yaakaar naa ni suñu dee Ahmadou Seck jaar na foo xam mënuñu faa jaar ñu ngi leen nuyu ñoom ñëpp ku ci nekk la jox sa di nuyu dëkk bi nag bu baax a baax a baax buñ ko jaarale ci imam ak chef de nuyu na ñëpp waaye dañuy beral nag nuyoo ñaar mooy soxna yi ak gone yi ndax lu jag nag ñoom la kon dañ leen di beral nuyoo bu baax a baax a baax soxna yi xëy na sama nijaay ax ma jaar na ci jaar la ko suñu bàjjan nogay waaye nag ci turu gone yi ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di rafetlu vraiment engagement bi ñu am ndax ci année bi wax na ko léegi bii mooy deuxième fois ñu fi ñëw ci manifestation dëkk gën na koo rëy waaye dëkk gën ko koo pasteefu dëkk gën koo engagé wu dëkk gën koo booloo yombul kon nag ñi ngi koy teg ci loxob sax mi nga xamante ni ñoo bokk liggéey bi mu teg ko ci loxob daayira bi président daayira bi mu nuyu waa daayira bi yëpp gannaaw loolu ñu ngi leen di xamal ni monsieur le maire am na loo xamante ni si suñu président commission des sages muy Baye nekkoon premier adjoint au maire ci mandat bi génn wax na ko léegi témoignage bu ndaw muy ajjuma ànd nañu man ak moom jugee Jurbel te am na doléance boo xam ni kii wax ci kaddu ndaw ñu ma la ko wax ci dëkk bi wax na ko léegi muy lu jëm ci électrification mu woo ma ki nga xamante ni si mooy électrification rural waxtaan ak moom boole ko ak man pour ñu def étude fii ci Sitor ndaxte am na ku fi dëkk koo xamante ni man xamoon fi la dëkk ñu waxtaan benn àllarba chauffeur la yaakaar naa mi ngi bambay xëy na bu fekkoon nekk na fi wala ma xamoon turam dina gën ko xam ñu waxtaan ba un jour ma ni ka mu ni ma courant Sitor bi mooy ñor ma ni ka mbir de soo ko bëggee fa muy jógee. am pax nekk ci diggante bi par exemple nga ndox soxla ndox pax nekk ci diggante bi ndox du ko jéggi mukk jàll ku la ni courant mën naa jógee romb daaru ngeer lomb kër jànd ñëw sur direct daf lay nax ñaanal yàlla li ñuy programmé muy daaru ngeer ak kër jaarnde pare su pare la ca des mooy mu jóge kër jaarnde jàll si Sitoor waxtaan naa ko koo xam ne xamul seen doomi dëkk bi la fii far yàlla àjjuma monsieur le maire wax naa naa mën ci loolu kon nag duñu ñu la nag ñu suba ndax politique dafa demee noo xam ni tey nag politique andiwuñu fi moom ndax bisub ñaan la ak bisub lu rëy rëy loo xam ne ñi fi jiitu wax nañ ko monsieur le maire toog naa fii ànd ak moom magi dëkk bi ni ko fii nga bokk ndax sa jur am na nu wéwlu ak dëkk bi muy benn ñaareel bi mu nekk maire de la commune jiite euh, euh, commune Baba Garage yëpp muy ñaar ñetteel bi ñu jël mbir mi dëppee dëppee ko ko kon loolu cër gënu koo gënu koo kawe euh, bi loolu amee. muy problème mu euh, tali bi di beneen beneen phase boo xamante ni si kooku yaakaar naa ni ku koy bëgg monsieur le maire moo gën a bëgg ndax li ci jaar kenn du ko ci jaar boo am sax gan guy ñëw da ngay rus su ñëwee wala nga am soxla bëgg a génn te yoroo oto bu confortable dangay am problème wala di nga yor ñaari mbubb wala di nga yor sac waaye nag alhamdulilahi rabil alamin am na loo xamante ni si ay mébétu président de la république ñi ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal ndax olof Ndiaye nee na ku euh, ku la ku la ku la ku la ma ko wax loolu mais olof Ndiaye am na lu mu wax ci li nga xamante ni si noonu laa ko fa xëy na mënu ma ko wax fàtte naa ko mais en tout cas moom xam ne na projet bu toll noonu jébbal ñu ko muy loo xamante ni si fi mu war a jaar fépp jaar na fa macha allah nañ ñaan yàlla yàlla bu cet dugg dee Bambey Baba Garage Baba euh, Kër Sambakan entreprise bu ñuy wax Chaban moo ko yore loolu moom leer na foo dem dinga nga ko fa fekk fi mu war a jaar jaar na fa ñëw nañ. sur place indi seen ay matériel installé wu nañ xeex bi nag dafa yaatu ku ci nekk noo ko mën sentiré ak noo ko mën a xeexee ba tali bi ñëw ubbi nañ bunt yi pour fépp ki bëgg a xeex wax mën na xeex wax ki bëgg xeex bind mën na xeex bind ki bëgg a xeex yël tànkam wër ay kilifa mën na xeex wër ay kilifa yaakaar mooy xeex bi gën te monsieur le maire logique boobu la nekk ndax rencontré na ministre bi waxtaan ak moom euh, ba financement am na te li ci gën a neex nekkul financement boo xam financement état la mais financement extérieur la muy waa Badea ñoo ko financé euh, loolu entreprise Saabaan ñi ngi fi ñun ñiy toog tey nekk adjoint maire ñoo nekk en relation ñoom ak ñi nga xamante ni si sàkku nañ ñu nekk ndaw yi dëkk bi tey liggéey euh, ci biir entreprise boobu noonu ba ci fan yi su ma su ma bañu doon joxe date ñeme rek dama leen date nangam monsieur le fay Mansour fi ñëw pour poser pierre bi donte ñoom commencé nañ travail euh, préalable bi kon loolu nañ sant yàlla te ñaan ci bis bi loolu àgg ak jàmm bu dee la nga xam ne leneen la muy li concerné Bambey Ngaay Mexe ndax fii nag ñun ñoo bokk lépp waa CSE ñoo ko yore seen liggéey commencé na ñu ngay liggéey am na yoo xam ay vidéo la ku dugg téléphone di nga ko gis nan ñaan yàlla nag mu yegg ak jàmm euh, am na loo xam ne bu fi jaaree day day lëndëmal xelu nit am na loo xam bu fi jaaree bu fekkee leneen ñëw na tànk ñuul doo ko mën a gëm te loolu nangul nañ ko ñëpp nag nangu lañ ko ñëpp nañ yàlla yàlla mu ñuul ak jàmm ak salaam euh, li ci des mooy dëkk bi ku ne xam na li fi li fi li fi jaaru bari na waaye nag commune bi ñu nekk doole ji bariwul waaye nag yàlla may nanu kilifa goo xam ni am na ay relation am na ay partenaire pour mën di wuti di indi donte nag daan daanu moom dajul suuf waaye ñu leen séeréel yéen waa Sitor xëy na ñi fi nekk duñ ko wax si ñoom mais gan ñi fi ñëw que Sitor soo luñu monsieur le maire ci dara nekkul dëkk boo xam ne seen i seen wax bari na nekkul dëkk boo xam ne si séeri séeri dem ak dikk bari na nekkul dëkk boo xam ne sol nañ ko ci ay casse wala ay doléance loolu moom dañ koy témoin ndax ku dee ak sa bàmmeel te jege nañ monsieur te à chaque fois bu amee luy génn xëy na moom kay mooy am yéene andi ko Sitor waaye waa Sitor moom sol nañ ko ci dara du nag seenu ñàkk fayda du nag leneen mais cër la bu ñu seq diggante ak moom te yaakaar naa moo koy firndeel la ci des nag mooy ci barke mag ñu baax ñi fi nekk ak kilifa yi ñu ñaanal ñu ba li nga xamante ni si moom la ñu dénk ñu am ci loo xamante ne kawe njortul askan wi ndaxte dafa am sànq sama wax na ko cinquante trois pour cent dans le département ci département Bambey 12 communes ñoo fi nekk juróom-ñaari maire yëpp dañoo perdre fa ñu nekkoon te suñu maire moo jël deuxième au niveau départemental loolu kon lu mu séq la ak askan wi ndax li naan pal njëkk moom say mbokk la koy fal ba deuxième sax mën naa nekk waaye ñetteel gi moom sa sa liggéey moo lay fal kon yaakaar naa ne liggéey la lu ko fal kon loolu ñi ngi ñaan ci barke mag ñi ak barkeb kilifa yi yàlla kàttanal ko woyofal yan bi ba lu mu defoon daaw mu def ren lu ko ëpp li ci ëpp solo nag mooy courant bi ñun nañ sol suñu daal di lancer appel à ce que Maysa ak la jeunesse mag ñi seen wàllu wéy na ñoo ko wax ñu àndandoowaat takkoo bokkaat boo bokkaat bokk bàyyi ñëw toogaat ak moom gën a waxtaan ak moom soñe ndax mënul ñàkk donte ñu nañ soñe mais ngeen soññewaat yéen tamit encore mënul ñàkk ba bu ëllëgee sànq wax na ni enveloppe bi daf ko participer si glace bu ëllëgee bu ñu ñëwee lu mel ni bu fi amee dootul nekk enveloppe bu ñu participer ci glace koy participer ci beneen domaine waxin la nag déggin la laaj maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu sëñ Cheikh li ndaxte bu yàlla dogalee barki dem boo njaay mu am lu mel nii yàlla dogal mu fekk ñu fa jox ñu kàddu euh, yëkkatiwuñu suñu kàddu c'est parce que ki ñu àndal aussi koy ci moom bu fekkee kilifa fa pare dootu teg baat loolu waral ñu jox ñu kàddu fekk wax nga ba pare ñu dootuñu teg baat loolu laa amoon lu ma ci wax ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah kon mbokk yi ñoo ngi leen di jégalu bu baax a baax rek di leen wax ne ñoo ngi ci euh, Euh, jàkkaarloo ko seen euh, télévision euh, Tawhid TV ñu nekk fii ci dëkk bu tedd bi di Sitor di suñu dëkku maam boo xamante ni fii la ñu cosaanoo boobu ba léegi nag ñu ngi dox macha allah waaye rek dañoo bëgg a àgg ci dëgg-dëgg itam li nga xamante ni mooy sababu jataay bi sababu jataay boobu nag ñu ngi koy ànd ak suñu mbokk al imaam Sadio imaam Sadio nag comme ñu xamal leen ko mu ngi. juddoo Thiès waaye itam euh, mi ngi tàmbaleem njàngam dëkk bu ñuy wax ngaay ngaay foofu la jànge ba am fa saxaadatul ibtidaaiya waaye itam continuer fa noonu euh, dem ci dëkk boobu nga xamante ni mooy Thiès continuer di fa jàng ba am fu brevet waaye tam ba am fa bac euh, continuer foofu nag di jàngale ci daara jooju nga xam ne mooy daaray Azhar nga xam ne ci la doore muy daaray Cheikh Mouhamadul Mourtada ba mu fa nekkee itam ba am fa bac yàlla dogal eh, concours yi nga xamee dañ koy def ci eh, hukumu ci gouvernement bi mu def ko ba am fa moom itam bagu eh, état yàlla def mu continuer foofu nag nekk fonctionnaire foofu di jàngale foofu ci biir dëkk bi ci école gouvernement bi waaye itam ba tey bàyyiwul daara ji nga xamante moom la sox ko ñu ittewoo ko fa mu fay liggéey liggéey bu am solo waaye ba tey it euh, mu nekk imaam foofu nga xamante ni mooy quartier suñu maam Cheikh Abdoulahi euh, Yakhine jóob Cheikh Abdoulahi Yakhine jóob nag euh, ku ko xam xam ko ak maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina waaye ku ko xamit fii ni nii ak ki ko ki ko wuutu tey mooy soxna suñu wax soxna Saybato Diop macha allah yàlla yàlla guddal fanam kon kooku mooy imaam Sadio Ba moo fas yéene incha allah bu ñëwee mu waxtaan ak yéen eh, ci wàllu li nga xamante ni moo ñu soxal tey te muy ñaanal sunu way dawlu yi nga xamante ni ñoo fi bàyyi ko ñu di leen di ñaanal waaye di ci fasaale mbooleem umma islaamiya fépp fu doomu aadama tëdd rek ci kaw suuf dañ lay fasaale yéen ci lool noonu kon kooku mooy imaam Sadio incha allah bu ñëwee dinañ waxtaanal lan mooy njariñul ñaanal suñu way dawlu yooyu lan mooy loolu ak lan mooy njariñ yi ci mën a amee macha allah kon dañuy def rek mu baasara ak moom eh, al imaam tafaddal maskura. salli ala sayyidina bahjati rijaali wa zinati nisa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi nu sante yàlla buur bu màgg bi subhaanahu wa taala mi nga xam ne may nanu nu fekke li nga xam ni doon nañ ko mébét doon ko wut ba sunu yàlla tey tey def ci ñu yegsi ci kon war na noo tàllal suñuy loxo ni sunu boroom jërëjëf ndaxte fekke te tal ànd ak wér dafa yombut kon ab jullit war nay sant yàlla saa su nekk dañuy wax ni xéewali sunu boroom yi yow jaam bi boo ko bëggoon a tudd doo fi jóge sunu boroom moo ko wax wa in laa ni'matallahi la tuhsuha benn misaal bi ma ciy joxee rek ci ñu war a sant yàlla danga nga suba teel ubbi say bët fekk na laataa nga koy ubbi borom bi subhaanahu wa defal na la bi ngay nelaw mu def ndox moo xam ne ci sa bët mbooleem taq-taq yi nekkoon ci bët yépp def na malaaka boo xam ne moo la koy raxasal ba mu set nga fekk micro bi yépp génn mu nekk laas te mënuloo ko sa bopp te pourtant bu ko bàyyi woon mën naa yàq say bët su ko defee dangay ngay suba rek dem sëlmu su ko defee ñu ni bët set na bët set na am na koo xam ni bëgg naa gis doomam te mënu koo gis am na koo xam ne bëgg naa gis baayam te mënu koo gis waaye yow loolu lépp yàlla defal la ko te am na koo xam ne mu ngi fay million ndeysaan ngir bëgg a xool rek kon loolu bu la ko sunu borom jaglelee mënatoo ko fay waaye nag di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndaxte julli ci yonent bi ndigal la ndigal la ndaxte sunu borom moo ko njëkk a def ba noppi ni malaaka yi def leen ko rax ci dolli mu ni kon yéen jullit ñi kon lu ngeen di xaar loo xam ne yàlla da koo def digal ko yenent yi yeneen digil ko maanaam malaaka yi ni aca yéen ñi gëm yàlla kon da ngeen ko def mooy yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima lu tax inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu kon julli ci yenent bi yow sax mënoo ko yow mënoo ko li tax mënoo ko parce que da nga koy sant yàlla parce que booy julli ci yonent bi lay wax allahumma ngay wax solli mooy suñu borom jullil kon yow mënoo ko kon dafa mel nga koy sant suñu borom ñàkk gi nga ko ñàkk man di ko sant suñu borom loolu daf lay xamal ne la yow mënoo ko yàlla mi ko bind xam yonent bi moom rekk moo mën a ñaanal yonent bi moo tax yow doo wax maa ngi julli ci yonent bi da nga naan allahumma salli yow yàlla maa ngi lay ñaan nga ñaanal yonent bi kon loolu ci ngay sukkandiku yow ba julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant nag cheikh Mouhamadinil Muntaqa eh, nafaa mu ne ko walla sax ñu wax ni yàlla na yàlla fayal ñu ko guddal aw fanam may ko wér ba mu bëgg a liggéey lislaam lépp ci toolu maamam bi yàlla may ko ci ndam waaye di sant tamit boroom dëkk bi di sant imam bi di sant mboolem notable yi nekk ci dëkk bi yépp ak ñi nga xam ne tey ñoo waral jotaay bi ba tànn sunu jëmm ju xeebu ju ñàkk solo ji ñu fas yéene leen a waxtaanal tuuti rekk ci loo xam ne xëy na bu nu fi jógee ragal naa ne dina am beneen toogin woo xam ne dinañ ko toggee ci li ñu bëgg waxtaane tey du ñàkk al oustaz Talla wax na ko léegi muy njariñal ñaanal ku fi bàyyi ko njariñal ñaanal ku fi bàyyi ko beneen tomb bi ki ñu ñaanal tamit bu nu ko dencee ñépp xam na ni ñaari malaaka dina ñëw di ko laaj bu boobaa tamit dinañ ko ñaanal ni ko rikkuwaay yow malaake yi boo ñu koy ñaanal wala bu ngeen koy laaj yal na yàlla def lañ koy laaj mu am fit mën a taxaw ba tontu tontu ba gën a rafet ñu xam ni tamit ñaanal ku fi bàyyi ko dafay yëkkati ay darajaam dafa yëkkati ay darajaam ba noppi tamit ñu jéggal ko ay bàkkaaram jéggal ko ay bàkkaaram mbokk yi yàlla subhaanahu wa dafa mel ni dee la njëkk bind dund dee la njëkk bind dund ndaxte moo ni xalaqal mawta wal xayaata li yabluwakum ayukum axsanu amalan waaw ndaxte moo ni maa bind dee bind dund lu tax ngir ma nattu leen xool ba xam bu ngeen dellu siwaate ci man ana kan mooy gën a rafet jikko anak kan mooy gën a rafet jëf kon mu mel ni àdduna bi dañ fi jaar jaar googu nu fi jaar nag yàggut jaar gi ñu fi jaar yàggut moo tax sunu boroom nattuñu ngir ñu jëf-jëf ju baax moo tax diine lislaam ji ñu nekk dafa nekk diine joo xam ni ma toog ci digg ci sas bi waaw jërëjëf macha allah baax na ah macha allah diine lislaam diine la joo xam ni dafa jagleel ñaanal ko fi bàyyi ko nga xam ni denc nañ ko ba noppi mooy mbir yoo xam ni sharia da koo tëral bu ñu ne sharia da koo tëral nag dañuy njëkk a dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndaxte moo ni képp koo xam ni bàyyi na fi nañu ko taxaw taxaw gi nag moo di ni doomu aadama dafa wuuteeg bàyyi ma bokk na ci la ngay njëkk a def mooy fexe ba suturaal ko léeg-léeg dangay dégg ci wolof sax naan dañ koy ragal ragal moom wuree su ko wax danga nga naan dañ koy dañ koy waajal koo xam ni bi muy dund daf laa manal bu mu demee ba tële da nga war a nekk ci moom ba mu yëg ni kon moom mbokkam nga moo tax dañuy wax ni la nga war a njëkk a def fexe ba toog ci moom di tudd laa ilaha illallah waxuñu ne ko waxal laa ilaha illallah ndaxte boo ne ko waxal laa ilaha illallah mën na laa wax déedéet ñu ni waxtu woowu bu fa tolloo dafay mar mar woo xam ni boo ko joxoon géeju àdduna bi yépp mu naan ko ngir mar waaye iblis sunu noon bu bon bi mooy nekk ci wetam ni ko kaasum ndox a ngi nii bu sedd sedd sedd sooy wedd yàlla rek ma la koy jox sooy wedd yàlla ma la koy jox waaye jamono boobu boo ko naan waxal laa ilaha illallah iblis di ko jox kaas bi mu naan déedéet dem nga jàpp ne da ko bañ a wax fekk na iblis mi jàkkaarloog moom di ko jox kaas bi ngir ni ko weddil yàlla moom na laan déedéet kon li ñu bëgg foofu rek nekk nga jàng ngay wax laa ilaha illallah du ñàkk balaa ruugee rot mu for baatub laa ilaha illallah te yenent bi nee na laa ilaha illallah ku mu mujj sa gémmiñ nga tàbbi àjjana kon foofu nag li ñu bëgg bu fa bàyyi ko nga nga fexe ba jël lu diis a diis teg ci biiram waaw lu diis loolu liñ ciy jublu mooy lekk gi nga xam ne lekkoon na ko te mu rees te mënut dem génneel ko boppam xam nga fii ci àdduna booy dund li nga lekk bu reesee di nga yëg ni daa war a génn yaay jógal sa bopp dem génne ko waaye nag ndeysaan moom mënul ko boppam ñu bëgg kon balaa dem nga nga génne ko yow moo tax foofu ku am fit dëgg ku am kóllëre dëgg mooy taxaw da koy bés ba mu génn raxas ko ba mu set wicc toppatoo ko wàcce ko ci suuf nag door a woote fii nag ñu ci bari loolu duñ ko xam dañ naan dog na rek ñu wàcce ca lal bi yóbbu ci wanag wi sàng yóbbu te fekk na am na lu waroon a génn ñu ne nag kooku da ko war a toppatoo ba ni muy koy sange ndeysaan loolu lépp ci àq la beneen ba xëy na ñu bañ a dugg ci wet googu xëy na sax du ci tem bi waaye dañ ko ciy ñambaas rek pour yow nga bàyyi ko xel xam ni àq la moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ni saa yu ngeen dencetee seen mbokkum jullit balaa ngeen a bàyyi ko fa ngeen di ko dencee na ngeen ko ñaanal ndaxte dañ koy laaj lan ngeen koy ñaanal yow sunu borom day ñoo ngi lay wax mbokk mi saa yu ko malaaka mi ñaanal wala su koy laaj yàlla nga ko dëgëral yàlla bu mu tiit ba tontu laaj yi koo xam ni malaaka yi ñu ngi koy laaj te malaaka yi mbokk yi yeneen malaaka yi sax dañ leen ragal waaye foofa dina la laaj ana kan mooy sa borom ana lan ban téere moo doon sa téere ana ban yonent mooy sa yonent ana ci jan diine nga nekkoon ñeenti laaj yi lañ lay laaj bu boobaa yow sa mbokk mi nga xam ni yaa ngi koy ñaanal danga naan suñu borom yàlla na nga ko may dëgëral ba nga xam ni suñu ko laajee mu mën a tontu foofu ngay commencé ci ñaan bi moo tax léeg-léeg am na suñu mbokk yoo xam ne dañuy wax ni nit moom amalul moroomum jullitam maanaam solo maanaam amalu ko njariñ ah kay ak ko amal njariñ amal na ko njariñ ndaxte nit ki bu faatoo noo koy def boo ko toppatoo ba pare da koy jël tëral ko daal di woote ñu jullee boo ñëwee looy wax ginnaaw boo jàngee faat ba noppi ñeenti kàbbar la boo jàngee fatiha ba noppi teg ci allahuma salli boobu ngay taayaa allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin ba mu jeex bu dee jigéen la nga taxaw ca ca ca ca mbagg ya wala ca bopp ba gis nga foofu lislaam dafa fiir dafa fiir ba nga xam ni ab néew sax da ciy fiir bëgguñu nga taxaw ci ndigg li bu dee góor nga taxaw ci ndigg li nee na looy wax da koy tinu yow sunu boroom kat kii sab jaam la woon bu daan def lu baax yàlla na ko ko ful bu daan def safaan ba yàlla bu ko toppe kon foofu nit amal na moroomum nitam njariñ waaw moo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon ñu digal ne bu ngeen amante ko fi bàyyi ko na ngeen ko ñaanal comme nii nga xam ni noonu lañ koy ñaanale moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa waxam jooju nag mi ngi koy sëf ci waxi sunu borom ji ndaxte sunu borom ni moom moo wax ni yusabbitu llahu alladina amanu bil qawli saabiti fi lxayaati dunya wa fi l axira wa yudillu llahu zalimin wa yafalu ma yacha sunu borom moo ko wax fii nee na ki nga xam ne ñu ngi koy laaj ci biir bàmmeel man bu ma bëggee mu texe man maay fexe ba bu ko ñaari malaaka yi laajee mu tontu leen te bañ a ragal kon yàlla yàlla def suñu maam yi ñaanal seen ñaan googa suñu borom nangu ko yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def mbokk yi bokk na ci ñaanal ku fi bàyyi ko dafa yëkkati ay darajaam dafa yëkkati ay darajaam dañuy wax ni bisub alxames bu nekk ci guddi képp ko amoon ku fi bàyyi ko dina ñëwaat këram dina ñëwaat këram di yalwaan maanaam di sarax ñaan di sarax ñaan alxamis ci guddi joo gis képp koo xam ni amoon nga ku fi bàyyi dina ñëwaat këram di saraxu ñaan waaye yàlla na yàlla def nag say mbokk moom di julli sax ba di la ñaanal am na ñoo xam ne bañ dencee seen jur lanu fa gëj fañ ko denc te loolu du ko lëre bañ ko dencee lañ fa gëj xamuñu sax fu mu nekk fàtte nañ ko loolu nag du ko kóllëre sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu waxoon ni ñi faatu day li ñu gën a bëgg tey mooy delloosiwaat fii ci àdduna donte ka as seconde lañ fiy def rekk ngir ñu mën faa jëf lu baax ngir mu jariñ leen wa argabul ashyaa lil amwaati raddun ila dunya ma alxayaat walaw suwayatan faqat li yaamalu saalihat tanfaahum ida xafalu nee fii ci àdduna du ñàkkoon sàggan ba def dara waaye dañuy wax ni li ñu bëggoon daal mooy suñu boroom indiwaat leen fii ci àdduna ba ñu jëf fi donte ka benn seconde ñu def fi lu baax mbokk yi ñaanal ko fi bàyyi ko lu am solo la ndaxte yonent bi sallallahu alayhi moo ni nit ki kat bu fi bàyyi ko mbooleem liggéey yi mu doon liggéey yépp dafay dafay dog ba mu des ñett ñu ni ko yonent bi ñett yooyu yan la mu ni bokk na ca nga am doom joo xam ni doom ju baax la nga jàngal ko comme ni nga xam ne mu waa Sitoor noonu la ñuy naanal seen maam jàng alquranul karim julli ci yonent bi def ay istixfaar def salaatu ala nabi yéene ko seeni maam bu fekkonte ni si ñoom jàngaluñu woon seeni doom duñu ko war a mën duñu ko mën a ñaanal bokk na ca doom ju baax su lay ñaanal day mel ni yow mi nga xam ni yaa ngi dem sax mel na ni yaa ngi toogaat ci kaw suuf di liggéey kon képp koo xam ni am nga doom na fexe ba jàngal ko alquranul karim jàngal ko tamit sariyaam ba mu mën lay ñaanal mbokk yi Sëriñ Tuubaa dafay wax ni saa yoo jàppee sa sa doom ju am juróom-ñaari at nga indi ko ci sëriñu daara bi sëriñu daara bi ni ko waxal bismillaahi waxal bismillaahi xale bi ni wax xale bi ni bismillaah ñu jéggal ñu jéggal xale bi jéggal baayam jéggal yaayam jéggal sëriñ bi koy jàngal te bismillaahi rek la wax ne waxagul rahmaani waxagul rahimi kon su mokkalee kaamil bopp nu muy def kon mën naa ràmm aw askanam ba ca topp mooy jëf joo xam ne danga koo jëfoon bàyyi ko fi jëf ji nga jëfoon bàyyi ko fi mooy lu mel ni nga gasub teen nit ña di ca naan jazaakumullah nga gasoon ab teen bàyyi ko sa ginnaaw nit ñi di ci naan nee na tuyaaba ji dala fay fekk mu mel ni yaa ngi ci kaw suuf di dund wala nga bindoon ab téere def ca xam-xam doomi jullit yi di ci jàng dafa mel ni danga toogaat ci kaw suuf di liggéey yool ba fala fala lay fekk mbokk yi yàlla ci boppam moo ni nañuy jéggulu ndaxte ku ma jéggulul ma jéggal la ndaxte Serigne Touba radiyallahu anhu ñun moom lañu yaakaar te du deñ mukk di ñaanal ay waajuram ginnaaw Serigne Touba mooy ñaanal ay waajuram yu fi bàyyi ko asantumaak ñun ñi Serigne Touba moom moom lañu yaakaar ñun ñëpp du mu ngi ñaanal ay waajuram ñun tamit bu ñu amee ñu jiitu dañ leen war di ñaanal di leen fàttaliku balaa maa ñëw ci ñaanu Serigne Touba gi dañuy wax ni am na jenn doom joo xam ni jenn waay ju baax dafa tëdd guddi ndeysaan xamoon na way juram mu gént guddi ndeysaan gis way jur wi ñu wan ko ni mu nekk ca barsaq fi mu ne nii demaguñu alaxira ñi faatu demaguñu alaxira ñu ngi barsaq fa la ñuy nekk kon ñaan yi ñu leen di ñaanal ñoom ci lañuy dunde dundee ndeysaan mu gis baayu xale bi mboolem néew yi ko wër yépp ku ci nekk yaa ngi tiim ndab loo xam ne ndabal leer la nga ci nga ci xew ciy xewlu ndeysaan xale bi baayam ndab li mu tiim amul dara mu ni ko waaye lu tax yow ñépp am leer gu ñu tiim mu ne ah man kat dama bàyyi doom ci àdduna baax na sax waaye àddunaa ko fëkk alala ko fëkk ba mu fàtte maa ñaanal moo tax tiimuma dara ci leer ndeysaan bi mu yewwoo jubal ca xale ba wax ko ni ko baayam ni baayam nekke xale ba nekk xale bu farlu comme ni waa Sitoor def nee na mu wut ay nag rey ko defarlu ay togg jox ko waa koñ bi ñu xéewlu ñu def ñaan jàng alquranul karim nee na wàll bi mu tëddaatee guddi ñu wan ko bàyyu xale bi leer ga mu tiim moo gën a leer la ñam nekkoon kon mbokk yi ñaan lu am solo la mbokk yi sëriñ tubaa ngi nii ñépp xam na ni moom bis dina ñëw mu dugg ci biir suuf moom xamoon na ko moo tax ci sindii di mu waxoon ni ay sunu boroom maa ngi lay ñaan saa yu ma duggee ci biir suuf sama yaram wi na nga ma fexeel ba aaral ma ko ba dara ba suuf bu ko laal bu mu sax ràpp sama yaram fas liyal jisma xaysu ruuxu faaraqani loolu la Sëriñ Tubaa ñaanoon waxoon na ko ni nag saa yu ma duggee ci biir suuf sunu borom yow rekk laa yaakaar nga wettile ma wa kun nasiri anisi xiinama dafanu jismi fa sirtu waxidan sama yàlla kon ndekete xam na ni képp ku ñu dugal ci biir bàmmeel rekk dinga nga kan moo la fa mën a wettili yàlla subhanahu wa taala ak sa jëf ju baax moo tax mu ne yow yàlla maa ngi lay ñaan samay wayjur wu jigéen gis nga di ñaanal wayjur wu jigéen ni ko yàlla na nga ko musal waaye bu ca yam mbooleem ku di jullit rek na nga ko musal yow sunu borom wa najjini wa jamial muslimina maan wa najji walidati amina yàllaahu rax ci dolli nag mu ni ko sunu borom yàlla na nga ko jéggal moom soxna njaara yàlla na nga ko suturaal ay ayibam yàlla na nga ko ñeewanteel yàlla na ko ñeewanteel yàlla bu mu am benn njàqare waxfir laha wa laha wastur maaibaha waltuf biha wa biha fi lhawli yàllaaw ñun ñépp xam nañ ni soxna jaara jaamukatu yàlla la waa kon buy dem ba Sëriñ Tuubaa di ko ñaanal ñaan googu loolu mooy képp ko amati wayjur wu fi bàyyi ko danga nga war di ko ñaanal te yonent bi moo ni bàmmeel moom xat na xat goo xam ni mucc ci tànc bi jafe na mucc ci tàncu bàmmeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam gum ko xamoon ba tax na sax Fatimatu bindu Asadin nga xamante ni si mooy yaayu Seydina Aliyu bi mu faatoo yonent bi dugg na ci biir bàmmeel tëdd ci biir bàmmeel bi ni xaaral ma wax ak bàmmeel ni ko rikk waay booy tànc sama yaay ji na tànc gi woyof moo tax Sëriñ Tuubaa xam gi mu ko xam moo tax mu ne sunu boroom yàlla nga musal sama yaay kon nag képp ku ñu fi ñaanal tey ji yàlla na ko yàlla musal waaye nag ñu xam ni Sëriñ Tuubaa ku ñu daan fagarul la ku ñu daan fagarul la ci di bis bu mel nii ndaxte boo gisee muy bind xasida yi rép lépp moom daanaka sax léeg-léeg sooy jàng xas yi danga daan naan waa sëriñ bi dafa mel ni ñun la doon bindal lii waaye sëñ bi sax day ñaanal boppam moo tax mu ni maa ngi giñ ci yàlla ni képp ku ñu teg ci kuusu bàmmeel te indaale fa ak njub di nga ñaan yàlla subhaanahu wa mu feq ci sa jëf diggante maanaam soow ak penk ni mu solee moo tax ba mu koy giñ dafa bàyyi billaahi bàyyi fa wallaahi gan giñ la giñ ma jëwriñ maa ngi ziar naka coono yi kan nga fi ñëw maanaam la mu wax mooy xam nga billaahi giñ la wallaahi giñ la waaye ba ci gën a for mooy tallaahi fii nag ci àdduna da gis koo xam ne day boole ñett yépp waxandoo ko te la muy wax lépp lu ci dëgg billaay wallaay talaay lay wax maanaam lu woyof la ci moom te muy lu rëy nag ci yàlla te nee nañ saa yoo giñee te la nga giñ defoo ko bàkkaar bi ngay am pour mu tegg ku la pour mu teggiku la dangay ngay war ñetti fan rax ci dolli fekki fukki miskin nga nga nga leen ba ñu rafet fukki miskin mooy tax bàkkaar bi teggeeku la fii nag dañuy tegale ñett billaahi wallaahi talaay Sëriñ Tuubaa moom bàyyi fa billaahi bàyyi fa wallaahi gis ni tallaahi moo gën a foor mu ni tallaahi laysa yanfau saxsa gadaa inda xululi ramsihi xayrul huda waaw maa ngi ma waat ci màggug yàlla gi nii nit ku indiwul jub ci kuusu bam saa yore malaaka yi tiimee di nga ñaan ci yàlla subhaanahu wa taala ne yàlla sama lii ñu may laaj yàlla nag ma soreel diggante pewum ko ak sawu niñ soree waaye nag ñaan lu am solo la Sëriñ Tuubaa nee na ñaan dafay jariñ bay jariñ ki faatu ci biir bàmmeel ki dee ñu dugal ko ci biir bàmmeel moo tax xam na ni soxna jaara jaamukatu yàlla la mbokk yi jaara du tur du tur wi jaara mooy koo xam ni dafay dëkkaale waaye tur wi dëgg maryaama la te maryaama buñ koy tekk ci baatu hebraniya parce que du arab mooy jaamukatu yàlla dundam gi gàtt na waaye gudd na fanweeri at ak ñett bariwut waaye teewul liggéeyu këram da ko daan def ba noppi toppatoo borom këram waaye teewul su guddee day day day laxasu fas yéene jaamu yàlla ba bët set daan ko wax nag sëriñ Touba ak Mamor Diarra ni leen gaañu baax yi lañu daan rawante mooy jóg guddi di la moo tax sëriñ bi moom dañuy wax ne bi mu amee fukki at moom ci la commencé jóg guddi di naafila waaye teewul sëriñ Tuubaa di ko ñaanal parce que àqu way jur la ak doom moo tax mu ni ko sunu borom sama ndey dey bu fekkee dalaa def dara dalaa def dara bu ko toppee yàlla nga ko jéggal ndaxte kat yow yërmaande ji nga am mu ëpp fuufu yërmande ji doom di bàyyi ak yaay am ci doom léeg-léeg nga gis yaay ndeysaan ni muy kof-kofee ci doomam yërëm ko bëggul dara laal ko soo ko laalee sax mu mer waaye gis nga ne yërmande jooju nga am ci sa doom ju ko raw la yàlla am ci nit ki moo tax cim njàngale borom bi subhaanahu wa dafa am ñaar ñoo xam ne jote nañ bi ñu jotee ndeysaan jërëjëf bi ñu jotee ba ñu war a dem ajjana kenn ki bëgg dem ajjana kenn ki ni sunu borom kii kat wam wërta dem ndaxte dafa ma yëreel àq sunu borom ni ko ah, na fay waa ji ni ah man de sunu borom man awma lu ma ko faye mu ni ko ah na ma fay de mu ni ko wax dëgg yàlla awma lu ma ko faye mu ni waa ji siggil xool mu siggil xool ci kaw gis kër goo xam ni na mu rafete ak na mu taaroo mu ni suñu borom kër gu rafete nii xanaa ban wàll yu moo ko war a moom ban yonent moo ko moom mu ni ko kër gi kat yomb na lool mu ni ko kër gi kenn mënu koo jënd mu ni ko ah kay mën nga ko am mu ni ko nu may def boo am ko mu ni ko nga baal sa sa mbokk mi nee na mu ma ko baalee rek moom kër gi mu ni ko waa baal naa ko mu ni ko jéggal naa ko mu ni ko aca ànd leen yéen ñaar ngeen dem àjjana kon sunu boroom yërmande ju mu am joo am ci sa mbokk rekk ju ko raw am na ko ci yow moo tax sëriñ tubaa di wax ne sunu boroom anha tajawaz anha tajawaz wa iyanan xaman na lana siwaaka fa antal barru yàlla sunu borom day yow de koo jéggal kenn tootu ko topp dara yàlla yàlla def ñu doon ñaanal ñu jéggal leen nga xam ni la yàlla wax ni am na ñoo xam ne dañuy dugg àjjana bi xayri xisaab kenn du leen càmbar siraat sax duñ fa jaar yàlla na ci yàlla boole suñu maam yooyu mu dellu waxaat ni ah bar sax nag metti na xabru tamit di bàmmeel metti na waaye suñu boroom yàlla bu ko fa dara metti fii barsaxin maa xabrin kullaha wazara wa min kurubin wa xawfin najjiyallaahu lépp lu mu fa war a ragal njàqare bu mu fa war a am sunu borom yàlla na ko ko baal bu ko toppee dara sunu borom maa ngi lay ñaan sama yaay laa tax tabirha gis nga bu ko càmbar bu ko bu ko maanaam bu ko nattoo bi ma laysat bi qaadiratin am na jëf joo xam ne ndeysaan ba mu koy def maanaam amul woon kàttana def ko xëy na juum na def ko maa ngi lay ñaan rikk waaye sunu borom bu ko toppee te dañuy wax ni yonent bi nee na yàlla ku mu xool sab jal gis ci dara ñu ni ko ba ci yow yonent bi mu waaw ba ci man mi waaye nag ñaan moom lu jëriñ la waaye maa ngi lay ñaan yaakaar ji mu am ci yow rikk waaye sunu borom bu ko tas kon tamit sunu maam yi ñuy ñaanal ñaan yi ñu leen di ñaanal te ñu yaakaar ci yàlla bu ko yàlla tas waaye nag maa ngi lay ñaan sunu borom déegu kaw sara bi nga xam ni ku ko naan dootoo marati te balaa ngaa tàbbi àjjana mbokk yi dinga naan ci déggu kaw sara maa ngi lay ñaan maa ngi lay ñaan sunu baay sunu yaay jooju rikk waay nanga ko ñaan nanga ko may mu naan ci déegu kaw sara waaye sunu maam yi ñu doon ñaanal yàlla nañ naan ca digg kaw moo tax mu ne wa asqina waxul moom moom rek de wa asqina mooy nanga naanal ñun ñëpp maaha ànd ak sama yaay min maa i man ixtartahu min jamil xalqi yallaahu kon yemu ca ñaanal soxna jaar rek yam ci de déedéet dafa ñaanal tamit wayjuru góor wi moo tax mu ni ko ca nuuru daaray ni wajaal buruuri walidayya wasila ilayhima xayra bururin xaasila waaye nag baax ñaari waajur gépp ngi lay ñaan baax gi may baax jëmale ko ci sunu ñaari waajur yàlla bu ko neenal wa jaal jamia ma jaaltuhu burur li walidee xayra saayin wa surur ah, gone yi nanu gën a góor góorlu ci waajur yi di leen toppatoo fii ci àdduna kuy toppatoo sa sa jur fii ci àdduna nag bu fi bàyyi ko jaraltul nuy wax te yàlla kat def ni bi ma jaamoo ba noppi bu ci war a teg keneen sa ñaari waajur képp wa qada rabbuka an laa taabudu illa iyahu lu mu ca tegoon wa bil walidaini ixsaanan na naan wax waxul rabbi irhamhuma kama rabbayani saxira sunu boroom yàlla nga yërëm sama ñaari waajur comme bi may gone ni nu ma yërëme woon waaye am sa ñaari waajur ñu nekk mag faalatoo leen toppatoo leen ah kon nag dafa mel ni fayoo naar bi xoromam kon nanu góorgóorlu ci war yi waajur yi ndaxte yow yàlla Sëñ Tuubaa wax de yow yàlla yaa nu dénk sunu ñaari waajur ngir lan ngir ñu rafetal jëme ci ñoom wasaytana bi waalidina xusnan yaa man jaaltani xadiman asna anni ajjizi gis nga waalidayya xayran yaksuru yaa xaaliqan ma shitu yaa mu assiru moo tax Sëriñ Tuubaa royukaay dëgg la ci ñaari wayjur ndaxte du dañ mukk di leen fàttali di leen ñaanal ndaxte nag mbakk yi yàlla subhaanahu wa taala jagleel gi ñu jagleel ajjana ñu moom ko ndaxte damay wax ni jullit moomoom ajjana te yàlla nee ajjana xatut àjjana ni suuf ak asamaan yaatoo noonu la yaatoo te yàlla nee na jagleelu ma ko kenn ku dul jullit yi duñu gis ci alxuraan fu yàlla ni àjjana daa fees dell dafa wax ni sawara moom dinaa ko feesal dell nit ak jinne la am la an na jahannama minal jinnati wal minal jinnati wal ins la wax dinaa leen feesal dell waaye àjjana moom sunu borom nee na du fees te nee na tamit jagleel ga ma fa jagleel jullit ñi xéewal ga ma leen fa jagleel rawatina jigéen ñi moo tax jigéen ñi foofu dama leen di wax ni yéen sunu borom daf leen fa maanaam nàkkal nàkk goo xam ni gu réy moo tax dafa wax ni jigéen suy dugg àjjana lu mu màggat màggat màggat sunu borom da koy tëggaat ba mu nekkaat jànq moo tax àjjana amul meer amul paa àjjana waxambaane la am jànq ak gone yàlla ko wax ndaxte moo ni wa kawaaxiba atraban ay jànq lan ay maase lan moo tax léeg-léeg fii ci àdduna di nga am aawo mu mag fuuf mën a jur ñaareel bi waaye àjjana moom si suñuy soxna yépp ay maase kenn du mag sa morom te yàlla ne nag yéen jigéen ñi xam nga jigéen dafa bëgg a sañse mu ne ko yow mi tàbbi àjjana ma tudde la ay ayni yow moom leer gi ngay àndal sa borom kër su jàkkaarloog yow day mel ni seetu ci moom Sëñ Tuubaa ko wax mu ne mir'atu azwaajihinna mu del waxaat ne yéen jigéen ñi xoolu ay nii su ngeen tifli woon ci kaw àdduna fii rek mu fees dell ak parfum moo tax yéen saa yu ngeen xëyee malaaka yi yow di ngeen fekk ku ci nekk ci jigéen ñi ñu tegal la juróom-ñaar fukki yére soixante-dix yére te yére yi foofu choix lay nekk 70 yére bu ci nekk day ànd ak parfum te yéen di ngeen fekk seeni lam ñu commandé ko lami or ngay takk sa ndeyjoor ba sa conco lami xaalis ba sa conco suñu borom yéen loolu la leen kon ñaan lu am solo la moo tax mu ni inna allah azza wa jalla yarfau darajaati lil abdi saalix fi ljanna nee na ca biir àjjana jaam bi suñu borom dina yëkkati dara jaam mu jékki-jékki ni waa sunu borom waa sama daraja bi ni muy yëkkati nii lu ko waral mu ne ko laa sa sët ya nga bàyyi Sénégal ca dëkk bu ñuy wax Sitor ñoo leen ñaanal ñaan gi moo tax ñu yëkkati seen daraja kon yàlla yàlla yëkkati seen daraja yàlla na ko yàlla def ci barkeb weeru kor ci barkeb seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam xëy na waxtu weenu jàpp waaye kon mënoon nañ ci gën a yaatal di ñaan daal képp ku am way juru fi bàyyi ko doon naa dégg nag ci sëriñ Fadlu bu su mu ni ñaan gi de saa ko ñaa saa yoo ko ñaanalee ku fi bàyyi ko dina ko yëg ci yaramam mel ni ku nuy dompat ni nga koy yëgee ñu ni ko lan la mu ne da jàng fatiha jàng ayatul kursi jàng falaq jàng naasi ni yàlla maa ngi lay ñaan lii ma lay ñaan yàlla nga ko yóbbu ci rooxu diw wolof waxal wolof déggoo arab waxal wolof taxte yàlla nee na ñaan yëpp laa dégg te dafa wax ni ñaan yëpp laay nangu léeg-léeg nga ni koo xam ne ñaan naa yàlla ba sonn mayu ma may na la kay yaa ko yëgut damay ñaan yàlla soxna wala may ñaan yàlla oto wala may ñaan yàlla nangam ñaan naa ba sonn aw fekk na yàlla xam na ni su la joxee oto ci waxtu yi du baax ci yow te yow yaa ngi bàkkaar boo xam ni boo ko deewaalee dem sawara mu nangu ñaan ngi def ko ci bàkkaar gi kon ñaan yépp la yàlla nangu kon ñaan yi ñaanal suñu maam yàlla na ko yàlla nangu mbokk yi daal li ci jub ci yàlla la li ci dëng ci man la bëggoon naa mu gën a leer waaye ñàkk fasaaxa ak ñàkk xam-xam la moom rek moo ci nekk in uridu illa al islah mastataatu wa ma tawfiq illa billah